fattabi'uuni yuhbibkumu llaahu wa yaghfir lakum zunuubakum wallaahu ghafuurun rahiim qul atii'u llaaha war-rasuul fa in tawallaw fa inna llaaha إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم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 هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله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 ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un يتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين laa yuminuuna bihi xatta yarawu alcadaaba laliim fa yaatiyahum bagtatan wa hum laa yashcuruun fa yaquuluu hal naxnu munzaruun afa bicadaabinaa yastacjiluun afara'ayta in mattacnaahum siniin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب wa hum fil aaxirati humul axsaruun wa innaka latulaqqal qur'aana min ladun hakiimin aliim iz qaala muusaa li ahlihi innii aanastu naaran innii aanastu naaran sa'aatiikum minhaa bi khabarin wa aatiikum منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا آياتنا مبصرة قالوا لسحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا الإيمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين jox ko pour mooy woo ki war a tàmbali منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 منزل الكتاب ومرسل الرسل والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bokki jullit yi bokki daaray kokki ñu ngi dellu siwaat ci béréb bii di bérébu xam-xam di bérébu jàng ak jàngile am mbégte ci beneen jataay boo xam ne jataayu xam-xam la waaye li gën a yell ci ñu ubbi jataay bii di jataayu xam-xam mooy waxu sunu borom bi subhanahu wa taala kon dañuy woo kenn ci yi muy sëriñ maxtaar loo mu ñëw jàngal ñu ay ay ci alquraanu karim ñu ubbee ko barkeeloo ko jataay bi insha allah ngeen dugg ci programme bi kon bismillah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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم قبله di jiital ci nuyoo bi alxaaji maxtaar naan loo mi nga xam ne moo jiite daray Koki eh, di ñaan yàlla yàlla yokk wéram yokk kàttanam waaye guddal fanam di nuyu suñu bàyyi yi nga xam ne ñoo ci jataay bi di ay jàngalekat di ay gëstukat waaye di nuyu suñu gaykat yi nga xam ne ñi nga bàyyi ko fu sori ngir yàlla ak teewee bis yi nga xam ne bisu xam-xam la di nuyu mbokki dongo yi nga xam ne ak élève yi nga xam ne ñu ngi fi toog ngir taataan ak bokk ñun bis bi euh, ci occasion bis bi nga xam ne moom lañu jagleel téere ci àdduna bi yépp te ku wax téere wax xam-xam moo tax direction bi nga xam ne mooy direction de livre fii ci Sénégal nekk ca daara ak ci jàppandalu waa ISESCO nga xam ne bibliothèque bi ci seen taxawaay la ñoom ñoo jël initiative tànn daaray Koki ngir ñëw célébrer fii li nga xam ne mooy journée mondiale du livre et droit d'auteur euh, ñu ci am mbégte ak kontante ci tànn gi nga xam ne tànn nañ ñu ko di ñaan yàlla yàlla na fekk ñu mérite kon programme bi nii lay tëddee dañuy jox oustaz Mouhamad Fass Cissé mi nga xam ne moo jiite bibliothèque bi mu dalal ay ganam dellusi muy tuuti ci historique gu bi ak importance su bis bi suñ ci paree du ñàkk am na ci élèves yi comme daanaka ñoom ñooy cible bi euh, quelques prestations yoo xam ne dinañ ko def ci kàllaam ak arabe ak français ba ci sax anglais euh, am na ñaari téere yu ñu tànn pour def ci conférence benn bi téere arab la ki koy def di imam Assane Seck war ñu koy defar benn exposé résumé ñu ko insha allah su du ñàkk ay question ci élèves yi euh, ki koy modéré mooy Oustaz Khadim Lo suñ ci jógee beneen téere bi ci kàllaama français la ki nga xam ne moo koy def mooy monsieur Sey di prof philo bu nekk fii ci institut ki nga xam ne moo ko war a modéré di monsieur Badji wala monsieur Samb incha allah suñ ci du ñàkk ay questions après incha allah suñ jógee ci loolu nag dana ay prise de parole ki nga xam ne moo fi teewal direction de livre incha allah di wax ci. Euh, turu direction bi dina am ku wax ci turu institut islamique bi incha allah niki noonu ñu daal di jox ki ngi wax ci kàddu sëriñ bi ñu daal di yëkkati jataay bi kon euh, dañuy jox oustaz Mouhamad Fall Cissé mu daral ay ganam ak soloy bis bi ak li nga xam ne mooy bibliothèque bi ci juróomi minute incha allah bismillahi rahmaan salaatu wasalaamu ala nabina muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin mbokk yu tedd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci tuuru Seex Muxtaar Naar Lo mi nga xam ne mooy jiite béréb bi ci daara ji ci tuuru docteur Ahmed Muxtaar Lo nga xam ne moom moo jiite njàngale mi ci sama tuur ma yor li ñu tuddee CLAC ci daara ji téere xam ngeen ne vecteur développement la transformateur social la levier éducatif la kon alxuraanul karim xam ngeen ne yàlla yonent bi yónni yépp leen booleeg téere leen booleeg nga xam ne ñun ñëpp suñ texe ak suñ àddina moom téere moo ne gind alif laam miim daalikal kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin kon téere mooy li nga xam ne suñ orientation téere moo na ko jox kon àddina si kenn célébré wul lu gën a màgg téere ci ak kaw suuf surna am ci àddina yépp kon téere boobu moo ci gën a màgg ndax yàlla nee na moo nekk moo nekk orientation moo nekk li yóbbu ci texe képp ragal yàlla alxuraan te téere bu jëlaat mooy lecture alxuraanul karim waaye bu njëkk wàcc si naam sallallahu alayhi wa sallam jàng néew néew ko julli néew ko wooral néew ko dafa ne iqra bismi rabbik daf ko ne jàng kon lekk yi mooy buntu développement ak texe ak euh, bonheur alak mën a jàngal am jàngale ko doo ko yónni kon jàngal boobu ma jàng ko dafa jàngaloo ñëpp dañoo laaj borom xam ne ko addina bi ñan ñoo koy yilif addina man sa yasurul alam man alladina yaqrauna addina bi ñuy lii daal ñoo ñooy domaine yi addina ëllëg ñuy addina ñoo ko domine moo ne ñuy jàng kon ñu jàngul moom kon jënd yilif soo xooloon tey Allemagne fet euh, bi muy bi ñu ko doon coow mu ne mu ne bu baax ma am manhaj baax dong la laa laa gis ngeen ne jàng mooy nag bu dee sunu mondial lii fa ñun ñëpp war ñu taxawaat waaye boo sama jamono bii da am naqar loolu monsieur Ndiaye ba ngay fàttali tey dañoo jël am pecc ab musique football bëre teg ko ci kaw téere feeñ lool ci jëf ji ni ñuy célébrer ñuy dem ci yooyu téere ñu ko laisser en rade kon culture ci boppam définition ba nañ koo xoolaat waxoon naa ko fa la ci biir section leen si la la lutte la danse la musique l'emporte sur la lecture c'est une déviation culturelle kon war nañu xoolaat culture ba war nañu ko xool kon livre moo war a jiitu ci lépp parce que réew yi dem yëpp fekk yëpp fekk yëpp wu leen bëri yëpp wu xool tey Japon xool leen Japon tey xam ngeen ni ci deux mille neuf cent quarante cinq la fa amee larga ñaari bomb ci Hiroshima ak Nagasaki détruire la ñu doon lépp waaye bañ jógee jàng tey kan mooy Japon ci àddina bi lan mën a développé mooy jàng kon buñ ne nii feebare su ma di livre kon ñun ñëpp nañ jógaat. xool lan muy téere dellu ci jàng waaye ñi ñëw jaamu njàngale te muy yéen nga xam ne yéen a yilif njàngale mi yéen lecture ñu fexe ba ñu waxaat les gouvernés le gouvernant joxaat ko importance particulière pour ñu mën a dem pour ne pas être long dafa xat kon damay tënk fii rek di waxaat ñëpp bis ahlan wa sahlan daaray doom yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, jërëjëf Oustaz Mouhamadou Fall Cissé ci kàddu boobu bu doon dalalee gan ñi comme temps daf ñu xaj daf ñu xoj xam naa moo tax ñuy njëkkante temps bi dañuy may et quelques élèves incha allah ñoom it seen participation ci bis bi ci livre balaa ñuy dugg ci exposé bi incha allah kon ñu ngi woo. Euh, euh, euh, Cheikh Tidiane السلام عليكم ورحمة الله أيها الجمهور الكرام أيها أيها السادة والسيدات أيها الطلبة والطالبات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبعد فأخصص فأخصص التحية لضيوفنا الكرام وللأساتذة المبجلين وللمحاضرين وأتشرف بمشاركتي في هذا اليوم العظيم يوم العالمي للكتاب وأحمل إليكم الحروف وفي طياتها الشعر والجمال كما أتشرف بتقديمها إلى حضرتكم بقصيدة تحت عنوان أهمية الكتاب وآثاره في المجتمع إليكم مطلعها لنا إلى العلم في أحلامنا أرب لا شك فيها ولا ضال ولا ريب لنا إلى العلم في أحلامنا أرب لا شك فيها ولا ضال ولا ريب فنحن في غربة الدرويش مكتشفا وهمنا العلم والأوراق والكتب لأنها النور لأنها النور في الأكوان بازغة شمس الحقائق لا تنسى ولا تغب قد احتوى الكل حتى الحلم في يده قد احتوى الكل حتى الحلم في يده فيه ازدهار وكذاك العلم والأدب والقارئون والقارئون أولو الألباب والنبلاء هم الذين إلى الأشراف قد نسبوا هم النجوم على الدنيا بضوئهم هم النجوم على الدنيا بضوئهم وفي المعايش كالأنهار ينسكب جاء القرآن كتاب الله معجزة له الهداية والآيات والرتب ختم الرسائل نور الحق بشرتنا دستورنا قرة العينين محتجب عن كل سر كذا الأخبار دون مرى له اكتشاف له الاقتصاد والطلب ختم الرسائل نور الحق بشرتنا دستورنا قرة العينين محتجب عن كل سر كذا الأخبار دون مرى له اكتشاف له الإقصاد والطلب قد أشغل الكل قد أشغل الكل حتى صار منجذبا إليه كل حماة الأرض قد ذهبوا قد انتشى الدين والتاريخ من فمه قد انتشى الدين والتاريخ من فمه فيه التقى العلم والأشعار والأدب خير الجليس كتاب خير الجليس كتاب دون ما فند إليه يا عجم إليه يا عرب قد أنزل الله في كل نبي كتابا للبيان بما قد كلف الشعوب والله قد جعل الكتاب منفعة لدى الشعوب مدى الأزمان يرتقب والناس والناس فيه سموا بالبعض من حكم وكلما قرأ الإنسان يكتسب يا للصحائف يا للصحائف والآيات يا علما وتنتهي عنده الأنذار والخطب القارئون القارئون رجال لا تنالهم مآثر الجهل لا طعن ولا كذب القارئون رجال لا تنالهم مآثر الجهل لا طعن ولا كذب فهذه درة تمت بفكرة من قد دار للعلم أهل الكوك يغترب فهذه درة تمت بفكرة من قد زار للعلم أهل الكوك يغترب فصل ربي على حبي ومن تبعوا لنا إلى العلم في أحلامنا أرب لنا إلى العلم في أحلامنا أرب Euh, macha allah Cheikh Tidiane ci xasida bi ci enrésumé da doon wax ci livre ak importance su ak livre lan taxawee ci àdduna bi euh, ñu mu rek euh, comme am na war a def ci français ñu koy woo mu ñu dugg dugg ci exposé bi dafa sëñ Modou ñu fàttali ne comme ñoom bi ñu jógee bis bi ñu ko waxee ñoom seen bopp dañ leen jox thème bi. ñu kenn ku nekk bind suñ bindee nag ñoom bëri na ñu bind poésie am ñu bind discours mais par la suite kenn lañ ci mën a ñaar sinon waaw am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi. waaye ñu doy li nga xam ne Cheikh Tidiane na remercier nos confis grandos et de remercier mes chers professeurs et mes chers camarades. Comme nous l'avons su, aujourd'hui c'est un primordial intitulé Une journée mondiale du livre. C'est pourquoi j'ai écrit quelques lignes pour vous décrire l'importance du livre. Le livre joue un rôle dans le développement de l'homme, car Il permet de veiller ce sens, de développer son imagination et de stimuler son cerveau. Il nous permet de découvrir d'autres époques, d'autres points de vue, de chevaler, de méditer et d'écrire un vocabulaire riche. Cet instrument facilite notre mémorisation, de réflexion, d'analyse ou encore d'imagination. Il favorise aussi l'extraction du langage. Le livre nous cultive. Il est la porte du savoir. Rien de mieux pour en apprendre sur le monde. Le livre nous fait vivre de Grâce aux mots sans C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ceux qui disent de ne pas aimer les livres n'ont surtout pas encore trouvé d'œuvre à leur Le livre est bon pour nous. car chaque histoire a une morale que nous pouvons utiliser dans notre vie. Cela nous soutiendra de ne pas faire les mêmes fautes et de marcher sur le bon chemin. De plus, en lisant des livres, nous augmentons notre langue et d'écrire correctement. Pour conclure, les livres nous complètent. De plus, lire des bouquins nous permet d'en des leçons pour orienter sa vie et éclaircir son expansion. Comme nous l'avons l'habitude d'entendre, le livre n'est pas seulement un livre, n'est pas seulement un livre, mais c'est la raison, le bonheur, le professeur, le thérapeute, mais surtout au meilleur ami. C'est pourquoi on dit le livre doit nous accompagner pour notre vie, car il nous conseille, nous guide et fait de nous des savants. La lecture de tous les beaux livres comme une discussion avec les plus grands esprits des siècles passés. Paul Biscard. Le livre est un savant, un protecteur. Sans cet apprentissage des fresques de la vie, on se heurte contre les parois. C'est pourquoi il faut plonger les enfants dans les livres, comme on les plongeait dans un bain pour leur apprendre le réflexe de nager. Voilà les bienfaits des livres. Je ne peux pas terminer sans remercier notre serment Rousseline Mokhtar et que Dieu soit avec vous accorde une longue vie et de ses compagnons. Sans une vraiment Ça vous dit merci tout le monde. Ça vous dit merci tout le monde pour votre boulot acharné, votre dévouement et votre détermination. De dire merci à mes chers Merci tout le monde. Euh, jërëjëf euh, sëñ Modou Dia macha allah euh, moom it ñu ngi yegg lu ñeneen ñi nga xam ne bindoon nañ ci France aussi te amuñu occasion pour mën a présenter seen kon euh, comme ni ñu rek dañu bëggoon yem ci ñaar yi mais tamit anglais balaa monsieur Ndao di ñu mere prof anglais bi te am na ci élèves yi ñu bindoon ci en anglais ñu may kenn rek incha allah ñu doog a dugg ci exposé bi Ousmane Ndiaye bismillah. Hmm? bii ci la bokk bii. si man ak sama sens si benn environnement boo xamante ni xam-xam dafa tumurante woon lool yàlla defoon ma nekk xale bu ambitieuse ngir ëllëg ma mën servir sama réew ak sama askan te xamoon naa ni mënuma atteindre sama objectif boobu dul dama jàng wante samay waajur xamuñu woon valeur xam-xam jamono jooju ba mën maa jàppale si si ay fani si laa def li ma mën ngir dugg école mais très chers camarades bi ma ñëwee ba école dama fi dund lu doy waar lu doy waar loo xamante ni mën naa ni moo changé sama ak sama ak sama des may laaj est-ce que bëgg ngeen xam li sans les samedis ak sama façon de penser mes très chers It is that important things which you can use to change your life. It is that one case which you have to use to open every door in your life. What is it? It is the only things that makes you like spirits, go on sweet talking, and strong imagination. Dear public, dear students, brothers and sisters, I'm so much happy to be in front of you with your sunburned face talking about the importance of reading. Dear students, reading is a seal that protects the mind of young people and liberates men from the limitation of ignorance and the resurrection of destructive ideas. The light of knowledge increases as the result of reading increases and develop its level. Dear brothers and sisters, a good student have to take his book his best friend and reading is companionable because the blessing of reading has been the spirit of great deal of good. Pleasure and tourism, work and construction, intelligence and development, scientific. And those professional development of human being. book play an important role in students' life, as they are the source of knowledge and information for everything. Book can make you a better person by keeping you company and teaching essential lessons and then it allows us to migrate everywhere around the world. Like the proverb has said, the more that you read, the more things you will know. And the more that you learn, the more places will you go. And finally, dear student, dear classmate, what you have to know is one child, one teacher, and one pen and one book can change everything in the world. Thank you so much. Thank you for having me here. God bless you all. Euh, jërëjëf euh, Ousmane macha allah ci anglais yu neex yooyu moom seen ndaw kontaan na euh, kon dañuy temps bi nañu midi jot na ba teg ay simili incha allah ci ngir bu gàtt dañuy woo oustaz Ahmadul Khadim Lo ci conférence bu njëkk bi nga xam ne imam Assane Seck moo présenté ko ci trentaine de minutes wala vingt cinq minutes rek mais pousse ñu ñëw day war wala caméra yi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 anzala ala abdihi alkitaba waja wa sallallahu wa sallama ala rasulihi wa alihi wa ashaabihi wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddin alxuduuru alkiraam innahu la sharafun kabirun li maahad Kokki an yatimma ixtiyaaruhu min bayni alcadiid min almarakisi fi Sénégal li istidaafati hadihi almunasaba alilmiya wa althaqafiya alsaida kama natasharafu alyawma bistidaafati shakhsiyatin kabira ahadi aclaami alilmi waddaawa wa qaama min qaamaati alfikri walthaqafa alaa wa huwa al ustaaz al kabir al imaam Xasan Seck al xaadiru bayna aydiina al yawm wa sa yaati li yutxifanaa wa yushannifa masaamicana bi cardin muujazin wa muqtadabin can hada alkitaab alladi kutiba can cheikhina al marhum alhaaji ahmad saxir lo kon mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp di am mbégte di dalal boroom xam-xam bu mag muy al imaam Xasan Seck nga xam ne ñun tànnuñ ko pour mu ñëw fii defal ñu conférence waaye direction di livre ñi ko xam ci compétence am ak ci jaar-jaaram ci bëgg xam-xamam ak nangu ko joxe ñoo ko fi invité mu nekk ndax moom day kenn ci daara ji bi mu saalum la fekk baax fa la dalee alquran waaye mu ngi àggale fii ci kokki fi la mokkalee ci année quatre-vingt yi bi mu fi jugee daa jawwali dem gànnaar Mauritanie ci benn université saoudienne bu nekkoon Nouakchott fa àggale njàngam ba am maîtrise mu nekk nit ku bëgg xam-xam nekk bilingue buy wax langue yu bari bind téere yu bari bari na ay livre yu yuñ biñ bindoon ci français moo ko moo ko traduire en arabe ay téere mu ngi fii ci suñu bibliothèque bi bokk na ci téere bi al intisaar li diini nabiyi l ummi abra al xiwaar al masihi al islaami ci taalif la bokk am na bindu professeur Iba Dar yoo xam ne nii euh, def na ko ci làkku arab mu am participation bu mag bu mu def ci euh, yaatal xam-xam surtout ci ñi nga xam ne ñooy jàng arab kon xam naa temps dafa xat lool dañu koy bàyyi jox ko toll ci ñaar fukki minute ak juróom mu defal ñu ab tënk bu bu ndaw rek ci téere bi nga xam ne docteur Ahmad Mokhtar Lo bindoon na ko ci dundu suñu Ahmad Saxir bu ko defee ñi ñaan ñëpp ñu teewlu ñu ñaan élèves yi surtout euh, buñ noppee oustaz imam Hassan bu paree ci kiyoom euh, discours am bi wala ci conférence bi ñi may ñetti xale wala ñaar ñi joxe seen laaj bu fekkee am na lu ñuy laaj ci lim doon wax ci ci dix minute incha allah kon ñu ngi jox kàddu gi al imam Hassan mu dikkal ñu ci li xam ne pare livre boobu bismillahi rahmani rahim alhamdulillah الذي افتتح المعجز الخالد بالدعوة إلى حب القراءة والولوع والكلف بها لكونها مفتاح alulumi walmaarif summa alsalatu wassalaam ala alnabiy alummiy alladi fattaxa cuqula alulama wa hadaahum ila turuqi alcilmi walmaarifa walmanhaj attajribi bis bu rëy a ngi bés buy wax ci mbiru téere bés buy wax ci mbiru lecture rawatina waa daara ñoom ñi nga xam ne seen lecture àgg na fu lecture kenn àggul muy mokkal téere bu toll ni alquran téere bu mel ni alquran samedi bi bi ko faree gannaaw dama doon defal ay labbe conférence sur les valeurs islamiques dans la quête di savoir et apport universel labbe bi bi may présenté mu ne jëmm ji toog il a le Coran en lui mi ngi ko jëlee kokki mu ne man j'aurais souhaité que ma mën a am la Bible en moi kon waa daara ñoo am loolu keneen ku dul ñoom amu ko ma dose leen ca conférence ba ndax conférence ba mu jeex téewuma kayit te wan laa leen suñu sëriñ lim doon wax sànq ne lépp ci alquran la jógee ko ak ay preuve yoo xam ne kenn mënu ci tebbi dara ndax cité naa Gustave Le Bon tubaab la cité Roger Garaudy tubaab la si cité Brifold tubaab la cité Auguste Sigrid Hanke tubaab la ñoom ñoom ñu nangu ne xam-xam yëpp ci alquran la joge ko kon gàcci ngalama waa direction du livre et de la lecture gàcc ngalaama docteur Ibrahima Lo gàcci ngalaama doomam ji toog fii ak mbooleem ñi jàppalanteeg moom bi nu amee perspicacité am gis-gis journée internationale ñu xam palaasu daara yaakaar naa ne xale yi seen prestation ci arabe seen prestation ci français seen prestation ci anglais doy na wundu doy na tegtal doy na jox raison ki nga xam ne mooy docteur Ibrahima Lo ak direction du livre et de la lecture rawatina nag tey barab bi nga xam ne moom lañu nekk ak symbole bu rëy rëy rëy bi muy jëmmal ci wàllu yu dul jeex dama jàppoon ne professeur bi mooy njëkk yëkkati kàddu sur le contrat sociale mais le vrai contrat social mu ngi fii le vrai contrat social mu ngi ci livre bi Cheikh Ahmed Saghir Lo radiyallahu fi ay anhu fi ayaami alxaalida qissatu xayaatin wa masiratu nisfi qarnin min al ata contrat social boobu moom la chercheur Aubryon doon tuddee le contrat social sénégalais muy mooñu wun gi waa Sénégal mooñu ci daara ak ñi koy jëmmal bu ñu wax daara nag d'ailleurs même mu àlliful kitaab même baat boobu la jëfandikoo bi muy wax ay xeeti cëriñ yi amoon cëriñ kokki Louga Ndakaaru te mu nga jóge ko euh, depuis ci révolution des marabouts tub naan nga xam ne boo demee professeur euh, Souleymane Bara Diouf ci livre am la société sénégalaise wax na ci mouvement boobu lu baree bare baree baree bare kon dama ne le vrai contrat social mu ngi nii waaye itam euh, le vrai barab bi koy jëmmal mooy barab bi waaye itam vrai jëmmu ji yàlla defaral boppam génneel boppam ci njubbaxteem ci sëmamu contrat social boobu di dellu ci daara mooy ki ñu bind téere bi muy suñu sëriñ Cheikh Ahmad Saxiir Lo ma ci am mbégte bu rëy ndax wax naa ko docteur ma ne man de li ma leen di wax rek mooy bidaatukum ruddat ilaykum <laughs> seen waa ji daal seen taalibe bi daal seen ndongo bi daal moom la leen direction du livre et de la lecture indil ndax fii laa tere alquran 83 maa ngi gis docteur mu Ousmane Dramé téere bi mu bind ci sëriñ bu màgg bi mu ne 1982 ba 2007 daara ji li fi mokkalee alquran man na 20 090 personnes vingt mille quatre-vingt-dix personnes yooyu waa ji leen direction de livre indil ci la bokk kon waaye itam ma am sama doom joo xam ne moom laa ko tuddee kon lu aju ci exposé téere bi bi ma sëñ Mouhamad loo waxee mbir mi dama ne ko bis boobu day ak barab boobu day gisuma téere bu ca gën a yell téere suñu sëriñ macha allah sunu xarit sunu àndandoor sunu wëlëre docteur Ahmad Muxtaara Lo ndax itam nag man bind naa jàng naa téere yu bari ci dund suñu sëriñ bi waaye ay jagle waaye lu ma jàppee aussi ak générosité eh, gi ma gis ci moom gisuma ko ci yeneen bindkat yi loolu jagle téere bi la téere bi daf ñuy wan ne kokki daf ñuy wan ne Cheikh Ahmed Sakhir Lo nekkul une personne qui est à Paris ex ex nihilo moo tax dafa gën a projeter lumière gën a wane lu ñu mën a tuddee les arrière-plans wala lu ñu mën tuddee les backgrounds boo ko seetloo lu ëpp gen wàllu livre bi ci lu tax daanaka Cheikh Ahmad Sakhir Lo feeñ ci la ko def commencé ko ci famim tudd ci ay maamam ñoo xam ne fonde daara fonde cëriñ fonde école càlla la goo xam ne mën na fukki maam kon kooku bu melee ni jëmm ji ñi bind ci moom téere bi background boobu xalfiye boobu wala arrière plan boobu mu ngi ñuy interpréter le le pourquoi kon loolu la njëkk wax ci téere bi mu joxe ci Eh, lu mat fukki ci ay ci ay maamam waaye itam wane seen jaloore waaye itam wane seen liggéey ci alxuraan ku bëgg a xam rek fukki maam yooyu rekk ak seen jaloore yooyu rekk jaayanteel ak yàlla jënd téere bi liir ko li ma lay junj yëpp da nga fekk foofu détail yu yéeme yéeme yéeme yéeme wax na itam Euh, jàngam ni mu bëggee woon xam-xam barab yu bari yamu jaar ak barab bu nekk ay xar baax yam fa feeñal xam nga ndongo luy nekk di jàng sa sëriñ bi lay jàngal ne suma faatoo ndongo li laa bëgg mu jiite ma loolu xar baax la ak ñi mu dajeel daje xaritoo gu dellu ci yàlla dellu ci diine dellu ci alquran ci barabu jàngeekaay yooyu bara ba ci barabu jàngeekaay yoo xam ne jëmmal kóllëre woy juróomu góor ak ay xaritoom ak ay àndandooram gu rafet ak ñamu doon àndal moom sëriñ sunu sëriñ bu tedd bii moo ko e, taxa dem ca barab yooya loolu kasaalika naka noon e, ku ci bëgg am luy bëggloo sa xol kontaan macha allah na nga fexe jënd téere bi ma yëkkati seen kanam nga nga nga nga liir ko danga ci am incha allah lu sedd sedd kaza noonu Euh, wax na ci itam sëriñ boobu xam nga tubaab bi balaa mu fi ñëw dafa dafa làkku arab mu am fi doole ñi ci daan bind di ci taalif càll la googu nag sunu sëriñ bii di cheikh ahmad saxiir loo qaddasa llahu ruuxa wa namma irtha ci ñi ko jëmmal ci boppam ci aw jàngam waaye itam ci xam-xam bi nga xam ne moom la jëlee woon ca jàng woowa ak capacité intellectuelle mu joxe ci ay preuve ci ay taalifam joxe ñëw analyser taalif yooyu analyser professionnel alifan ku mel ni docteur Jim Ousmane Dramé bi ma waxoon sànq waaye kazalika naka noonu téere bi képp ku bëgg a xam nag histoire kokki jàmbur loolu lay tuddee générosité tabe ci daraja te xeetla ci objectivité bi nekk ci téere bi ndax man yeneen téere yi ma daan liir ci cheikh ahmad saxir qaddasallahu ruuxa wa namma irsa dañ daan gën a la lumière ci jëmmam gën a projeter la lumière ci ay jëfam mais ah téere bi li may wax noonu les arrière-plans et les dafa projeter lumière ci dëkk bi nga xam ne mooy Kokki ci ay boroom xam-xam suñu maam Muxtaar Ndumbe Jóob ak njabootam ak ay sëtam ak taalifkat yu màgg a màgg a màgg yi nga xam ne génn na ci euh, sëtam yooyu bokk na ci ki bind muqaddimatul kokki nga xam ne mooy lu ñu xam téere bi njëkk ci wàllu grammaire arabe mu def ko ci poème arabe lu war a mat 769 vers te kooku bi muy gaañu amul dudut ñeent fukki at loolu bu amee ci dëkk bu mel nii mu jeexat ko mu sulli ko mu génne ko mu fësal ko adduna war ci mën a jàngee moom ak ñeneen ñu bare bari a ñu mel ni moom parce que aucune personne puisque aucune science ne à Paris subitement xam-xam du xëy àgg fenn fi jëmm du xëy àgg fenn fi soo ko gisee rekk am na lu ko jiitu woon moom nag mu ñëw creuser ci loolu jiitu woon ko loolu générosité la pour man objectivité pour man la tabe ci daraja pour man la euh, bi mu jógee foofu itam ñëw na lu bari ci situation wu kokki buñ ne la barab bi tey université la woon euh, xëy na ay année surtout balaa sunu sëriñ Ahmad Saxir di fi ñëw boo xoolaa ndax dangay gis màndarga ya moom mu ne la màndarga yi ak am vestige yi ak am waaye nag dafa am ay guerre ay perturbation ay problème yu fi jaar mu mel ni décombre xam-xam yooyu décombre jihad yooyu dañu xawoon a jaloo fekk mu ngi ci suuf si mu junji lu baree bari ci xew-xew yooyu daana am ci côté contrat social diggante maarabu yi ak population yi depuis mouvement naan bu Nasiru Diin nga xam ne contrat social boobu O'Brien di wax li ñu xam ci histoire foofu la njëkk a juddoo di continuer di wéy marabu yi di am influence yi nit ñi di contribuer ci pacifier leen ak lu nekk cadre unitaire de l'islam au Sénégal am na benn manuel bu mu bind ci wàllu man ci co-auteur la bokk Sénégal unique et pluriel pour un meilleur vivre ensemble loolu li ci marabu yi liggéey ci wàllu contrat sociale bi nga xam ne moom nga naroon a waxee contrat sociale boobu moo yóbbee marabu yi nekkoon fii ñi jóg défendre population yi ci ay taxawaay yu baree bari waaye kazalika naka noonu ci wàllu générosité am mu ñëw projet projeté lumière yu rëy rëy yu ama am doole yu regg ci maam Cheikh Ahmad Saxiir lañ koy wax sax waaye moom Kabir la ko tuddee mbay ki nga xam ne tey moom lañ tuddee sunu sëriñ bi mu nekkoon xaritu way juram mu nekkoon boroom xam-xam boo xam ne avant l'âge de vingt ans ci la commencé woon di bind ay téere moo ko orienté nekkoon jaamukatu yàlla mu wax ci ay mayam daana julli bés bu nekk lu ëpp téeméeri ràkka ak ñaar fukk mu wax ci moom lu baree bari loo xam ne man gi mosuma koo jàng ci benn téere rawatina téere biy wax ci sunu sëriñ Cheikh Ahmad Saxiir Lo te jàng naa ci moom ay téere yu bari wax na ne traducteur la même traduire naa ci benn thèse de doctorat waaye nag li ma gis fii moom Euh, kon su ko defee nag bi mu jógee ko ci background bi parce que background bi aussi boo ko seetloo li ëpp xaaju téere bi ci loolu lay wax kooku générosité la kooku manque d'égoïsme la kooku tabe ci daraja la jërëjëf mu doog ñëw nag ci suñu sëriñ boobu surtout ci côté euh, lu mu tuddee al ibdaa tarbawi téere bi foofu la tarkiis maanaam côté yar ak jàngale li mu ci indi loo xam ne moom rek moo ko indi ak xarañ ba ak sellal ba ak ubbi jàng goo xam ne ñëpp ubbi na leen buntu jàng jaayante ceeg yàlla ak ndam yee ko ci yàlla defal ci nit ñi génnee ci école bi depuis démb ak tey ki fi njëkkalee mokkal alxuraan doy na muy sëriñ Sam Mbaye ak fi mu àgg ci xam-xam joxe ci ñeneen waaye kasaalika naka noonu mu ñëw ci école boobu lalee ci sellal wax naa la sànq docteur Djibou Ousmane Dramé 1982 ba 2007 20090 nit ñu mokkal alxuraan man mii ci laa bokk loolu mooy tekki barke ak sellal bi nekkoon ci sunu sëriñ ak ubbeeku ci yar ak ubbeeku ci defar nit mu dem ba feeñ ci école bi tey wax na école bi xëy na la sax yokku na jamono ji muy bind téere bi euh, école boo xam ne war na am 64 salles yoo xam ne benn établissement la moo tax 2016 ñi nangul leen ne bokk na ci école yi gën a am performance waaye bokk ci école yi ñu gën a seetaan waaye yàlla leen seetaanut professeur Iba Der am bind na ci lu bari wax na ci lu bari jooy na ci lu bari waaye yàlla seetaanut leen sunu proviseur bi nu am dafa doon ñëw bu wax bu mu ñëwee ne dafa bëgg a am 100 pour cent résultat ma ne ko mën naa nekk mu ne man mu ne ma lan mooy firnde bi ma ne ko kokki réaliser nañu ko te jukki amuñu moyen état kon loolu mooy al ibdaau yi ak ubbeekum ubbeeku boobu tey ñu sox ñu soxla ko ci mboolem courant wu jullit ñi kon du al ibdaa tarbawi waaye al ibdaa ad daawi kazalika kon xam nga ne téere bu ñu tollu la joxe vingt cinq minutes ne na nga ko résumé doo xam looy wax doo xam fooy tàmbalee waaye li ci am solo lii ay junj la maa leen di woo nag ci jënd téere bi ci jàng ko ñun xeetu jàng lañ abbé yooyu ma doon defal conférence cité naa fa keroog Gustave Le Bon fu muy waxee ne la science si dédaignée par les autres a été estimée très haut par les musulmans c'est à eux du reste qu'est due cette réflexion très juste sont des hommes ceux qui savent ou ceux qui apprennent le reste n'est que au bon à rien xam-xam jullit ñi ñoo ko bëggloo adduna méthode expérimentale ñoo ko érigé parce que alxuraan mentalité expérimentale la lay jox kon eh, am na keneen ku doon wax ci jullit ñi na naka lañ bëggee woon lecture même les classes sociales les plus basses étaient avides de lecture les ouvriers se contentaient de peu de nourriture pour acheter des, des livres avec le dernier de leurs sous. Un ouvrier possédait une bibliothèque à laquelle les savants se rendaient avec empressement et enthousiasme loolu moo doon suñu tradition te xeet boo xam ne iqra kay lañ ko njëkk wax lu war a mat 750 verset coranique di wax ci lool noonu lañ war a mel kon tradition boobu maa ngi leen di dekkal ko ngeen dundal par bés macha allah bu baax baax di taxaw fi wax ne li duuf ci nag yëpp daa ngeen di cinq macha allah xanaa di taxaw fii rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamu aleykum wa barakaatu barakallah shukran barakallah fiik shukran shukran shukran shukran xam nga nooy exposé téere ci kanam borom day am problème. wa afattum. جزاكم الله خيرا على هذا العرض الشيق والممتع فاختيار هذه الشخصية العلمية الفذة لم يكن عبثا بل أعطينا القوس باريها فجزاكم الله خيرا imaam ñu ngi lay sant bu baax ci li nga fi sotti xam ngeen ne ni ko olof di waxee li duuf ci nag wi xaajul ci cin li buñ ko bàyyi woon ne micro bi ba guddi du taxaw te njariñ rek la ñuy wax ndax moom moo ni mel waaye téere bi tamit moo ni toll euh, kon liñ leen waxoon léegi bu amee ñetti élève wala ñaar ñu am luñ gendiku wala luñ bëgg a laaj imaam euh, imaam nag wax na lu bari ci livre bi taxaw na ci euh, Cheikh Ahmed Sakhir waaye personnalité boobu lan moo ko war a fonde lan moo war a nekk ci ginnaawam wax na ab histoire parce que fii depuis junni at ak ndàngam suñu maam yu baax yi dafa am liggéey bu am solo liggéey bu rëy bu def ci réew mi liggéey boobu moo continué na ba tey euh, ba fondé li ñuy wax la société sénégalaise comme ni ñu ko tuddee waxtu wu nekk am ñu ci gën a ràññeeku am liggéey bu mag buñ ñu ciy dem buñ ñu def ci vingt yi unième siècle nag sëñ Ahmad Saxir bokk ci mag ñooñu waaye mu amee ci dëkk kokki dëkk histoire dëkku xam-xam nga xam ne maam Ndumbe moo ko sancoon la suñu xarit kokki muxtaamatan sal mbaakolan sal chiarahum ba mu bay yi bayyinal ishkaali nga xam ne foo dem ci réew mi rek mag ñaa ngi fa woon ci waxtu wu ne ak jamono ju dekk doon fa def liggéey bu mag di liggéey lislaam ak di tasaare diina ji di jàngal nañ ñi di leen yar ba tey fi ñu toll nit ñu toll fi mu ngi soññi tamit ci livre bi ku ko mën a jënd nga jënd ko jariñu ndax xam-xam bu baree bare ci nekk euh, kon ci tënk ndax temps amul bu fekkee ne benn xale ñëwul kon ñi am na hmm? te mu tënk macha allah oustaz après nga wax ni bu fekkee réussir la contrat social ñun lan mooy suñu taxawaay léegi ci moom ndax mu jëmbal pour mu daal ko wéyal nan la ñu war liggéey boobu. annakaw kooku yi buñ ko sos du ma juum mille sept cent nangam te bëri na ci Sénégal bëri na ay dëkk yoo xam ne ñu ngi ko sos mille huit cent wala mille neuf cent lu tax kooku ba léegi fu mu toll nii mu xaw a tàgg

kon ñu déglu imaam bu amee lu muy tontu ci question yooyu mais daaru euh, ñi xamal ne kokki tardewul ndax euh, nañ xam ne dëkk bi kokki ginnaaw ma maxtaan ndumbe dafa raafoon ba kenn dëkkatu fi ab sëtam moo ñëwaat dekkalaat ko ku ñuy wax njaga isa jóob njaga isa jéey loo jóob ba ci moom lañuy ñuy askanale dëkk bi kokki njaga isa jéey jóob te tubaab bi xam ngeen ne yàq nañ lu bari ci diine Euh, seen liggéey ci waaye ginnaaw yàlla baaxi kokki ba suñu Ahmad Saxiir yàlla indi ko fi ci euh, vingt et unième siècle ci 1939 mu dekkalaat liggéeyu Maam Maxtaar Ndumbe ba gis ngeen fi mu fi liggéey bi àgg tey kon kokki tardewul kon kon loolu lañ doon wax rek ci bismillah hmm? sori na eh, de donte tàmbali ba mu tàmbali woon man gëm na wéyoon dépassé fii mu nekk ndax dëkk boo xam ne muqaddimatul Koki un jeune bu am 40 ans moo ko bind Masamba Maram Diop dundoon ak moom ñooñu xam nga ñan lañ moo Ousmane Dam rakkam bi ni Abdullah taay ñetti téeméeri téere xëy na aussi vision ak gis-gis aussi mu ngi ci biir ndax jàpp naa ne tàmbali booba bu wéyoon di yokk kon ci côté dëkk bi doon na dépassé fii mu toll mais vision boobu nag moom la maam Cheikh Ahmed benn soldat wu lislaam dëkk kokki ci côté deret ci côté askan dëkk fi kasaalika naka noon ci côté bokk ci bi ci ndox defaral ko boppam préparel ko boppam indi ko samp ko fi ah, samp googu nag yaakaar naa ne laaj bi mbokk mi laaj samp googu feeñal na ci jëmmal na ci war na ci loo xam ne insha allah na suñu xel dal yow mi laaj laaj bi na sa xel dal tànki kanam rek la yàlla jaar jaar bi ak li ci jógee comme résultat war na dalal xew xam ni ci maam Saxiir Mbay bis ci côté de ci côté mbox côté askan indi ko fi dalika naka bi nga xam ne moom monsieur Badji laaj contrat social boobu nañ ko génne waat nañ ko fësalaat nañ ko jaay nañ ko vendre nañ ko duunal luñ ci mën a jàpp ñu jàpp ci ndax mbiru ku xool démbam rek gis ne ku bëggut a tardé rek gaawal nga ñëw jàpp ku jàppul itam yow yaay tardé waaye mbir mi day dem loolu laa am lu may wax ci ñaari aj yooyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah Saalum moom jubluwu ci loolu moom beneen débat la. beneen débat allah beneen débat la. incha allah. Hmm. wax na ni moo nekkoon dëkk bi rapport bi colon yi doon def beneen moo tax dëkk bi gën a organisé. Hmm. nguur yi ay date yàlla sii di date yàlla. Hmm. ah laa si ñoom rek. exilé mu nekkoon benn cité boo xam ne moom nee nañu fekkal bu ñu jour bu seul. fekkal ba échoué militairement mooy bi mu ñëwee ñoom rek ci. 1858 1854. waaye nag diine ak hmm. hmm, salaam wa rahmatullah. jazakallahu xeyran. kon euh, ñu jox oustaz euh, Mouhamed Ba Cissé bala may leeral journée mondiale ci li ñu doon wax léegi bu leen fàtte ne Ndiaga Issa waaye bi ñuy déclaré ko dañ ko doon topp ba mujj mu départ kooku sax mujj génn kooki dem Waalo toit bi di ko traqué jóge fa dem Ndakaaru di ko traqué ba mujj mujj Fuuta ca Njuum fa la faatoo Ndiaga Issa taawam Modou Fa Khoudia yi nga xam tubaab bi dina jël sànq leen ba léegi kenn fu ñu nekk taawam ci la maanaam moo dafa ko jëmi taawu njagee sa tubaab bi ñëw xëy ne ko cot pen yóbbu ba léegi kenn xëmu ci moom benn trace ñu juróom-ñaari personne kon bu fàttali ne dëkk yooyu tubaab bi lu tax mu ñu woon dem tubaab bi dañu doon xeex ndax ñoo doon foyer yi nga xam ne ñoo doon formé nit ñi den libéré euh, journée mondiale du livre nag maanaam loolu àddina bépp ko moom nga waroon nekk le 23 avril la waroon doon direction de livre ñoom seen yitte xam nañ ne mënuñu ko defee à ñu def na ko benn woon te lay dañu bëgg a teew ñu bari ay liggéey te ndax ñoo war dem ci beneen yeneen mission tax ñu ne kon nañu randal kooku moom am na yeneen bis yeneen nañu randal ba mu ñëw ci le 30 ji bu ñu mën ko def waaye bis moom may la 23 avril la ko UNESCO jagleel àddina bépp waaye di xër gu xër ci ñoom pour. ñëpp mën cee jëriñu ñoo tax ñoom ñu jël yeneen bis te ñëpp dañ bëgg fu ñu defee ñu mën jaa teew war a contribuer te nag omniprésence yàlla dong nga am. su fekkee ñoom dañuy dem pëne ñu def ko di ñu moo tax ñu def ko tey jii waaye la 23 avril la waroon doon dëkk yëpp àddina fépp ko war a célébrer moom kon ñoom gisaa ko mu laa xeer. Euh, kon xam naa ne par nañ ci première conférence bi deuxième bi incha allah waaye balaa boobu ñuy dalal suñu mbokk Abdou Karim nga xam mooy monsieur le maire représenté euh, la Koki euh, ñu koy dalal di ko wax dalal jàmm ci jotaay bi di jotaay xam-xam léegi noonu tamit di dalal ñi nga xam ne ñu ngi ci lycée Koki di ay jàngalekat ak ay élèves teew fii ci jotaay bi kon xam naa moom si Badji incha allah di jaajëfal imam Assane Seck ci conférence bu am solo bi nga xam ne defal nañu eh, xale yi élèves yi eh, découvrir beneen facette eh, yeneen yi borom yi xam-xam surtout ko surtout koo xamante ne bi ci la jaar ci ji di kon xam-xam bu ràññeeku liggéey bu bari ci wàllu xam-xam ci wàllu islam ci wàllu tradition kon ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla yokk xam-xamam euh, ci ñu amaat yeneen jotaay ak moom incha allah ci béréb bi. exercice euh, très difficile. ñu bàyyi monsieur Badji incha allah ak deuxième conférence bi ak monsieur Seye te ci vingt cinq minutes incha allah ñu doog ñëw ci prise de parole bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait préparer à cette petite assemblée. Nous sommes honorés et privilégiés de prendre la parole devant cette auguste assemblée, devant ce lieu de savoir, ce temple de savoir qui et un creuset de rencontres et de civilisations de personnes venues de partout à travers le monde. Donc je vais essayer de faire une courte présentation de M. Sey. Alors M. Sey est né au milieu des années à Cheyenne, ici à côté. Il a fait ses études élémentaires à Djurbel. Ensuite, euh, il a fait les études moyennes et secondaires également à Djurbel. En 1993, il a réussi au concours de, euh, de, de l'enseignement élémentaire. Son premier poste fut à Bakel, ensuite à Tamba. De 2002 à 2006, il a fréquenté l'école 10, Pékin 10 quoi. En 2008, il devient directeur de l'école de Mbaké. Puis en 2011, il réussit au concours de l'homme instituteur ce qui l'a permis de retourner à l'UCAD pour faire la formation au département de philosophie, où il obtient une maîtrise en philosophie. De 2016 à 2018, il fait la formation à la FASTEF. Après FASTEF, il est admis au lycée de Ndiaganiao En 2002, il a été affecté à Coquille et depuis lors, il est là à Coquille comme professeur de philosophie qui intervient à la fois au lycée et au, à l'Institut islamique de koki Donc, il va nous faire euh, une présentation du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Euh, je vais donner la parole sans plus tarder, Inch'Allah. Merci, Monsieur Badji. Merci, Monsieur Badji. Ah, Merci, Monsieur Badji, de cette euh, présentation. Euh, je commence d'abord par euh, saluer l'Assemblée Euh, les autorités ici présentes, celles qui nous viennent de Dakar, euh, en particulier les, représentations, les représentants de la direction du livre, euh, les autorités de l'Institut islamique et particulièrement le directeur Moudir Baymodoulo, les invités, les panélistes, Oustaz euh, Seck euh, ainsi que les collègues venant du lycée et de l'institut. Je n'oublie pas également dans mes salutations les élèves de l'institut, mais également ceux du lycée de Gorky. Euh, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un livre du contrat social, qui en plus de sa portée significative est une œuvre au programme des classes de terminale. Les élèves de la terminale L, L' et L2, parce que celui ceux de la série S sont concernés par l'apologie de Socrate. Je commence d'abord par dire s'il y a une œuvre qui a tant marqué les esprits sur le plan de la philosophie politique et qui a su exercer une influence sur la façon de penser la politique, on ne peut pas ne pas citer le prince de Machiavel, mais également du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. cette œuvre que je viens de citer dernièrement, le contrat social, a la particularité de poser les fondements de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire, ici, Rousseau cherche à expliquer comment le pouvoir, l'exercice du pouvoir pourrait être légitime. pour garantir cette légitimité, il faut forcément partir d'un contrat qui implique à la fois les gouvernants et les gouvernés. Mais avant de revenir sur la quintessence de ce livre, de cet ouvrage, j'aimerais un peu parler du parcours de l'auteur, c'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau. Qui est Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau est né à Genève en Il est d'un père, euh, il est d'un père euh, Il est né en Genève d'une, dans une famille calviniste et euh, d'un père horloger, autant pour moi, et d'une mère euh, a eu à perdre dès sa naissance. Donc il est orphelin de père. Mais à l'âge de 16 ans, pour échapper à la tyrannie de son père qui lui enseignait la gravure, Rousseau fait figue et s'installe en France où il exerce les métiers les plus divers et connaît les conditions sociales les plus contrastées. C'est-à-dire il faut reconnaître qu'il a eu une enfance très difficile, une enfance marquée par euh, euh, une vie vagabonde parce qu'il a tendance à changer de lieu de, euh, de résidence jusqu'à la fin de sa vie. Et cela, effectivement, a rejailli sur sa manière de penser, sur sa manière de voir. Maintenant, essayons de parler un peu de l'ouvrage, du contrat social. Dans un premier temps, nous allons essayer de camper l'œuvre dans son contexte Pourquoi Rousseau a-t-il eu en fait euh, l'objectif ou bien le désir d'écrire le contrat social Parce qu'il a eu à constater un certain nombre de manquements dans la façon de gouverner euh, au niveau des peuples. Parce que lors de son séjour à Venise, Rousseau a eu à constater effectivement que le mode de gouvernance proposé n'est pas conforme à sa façon de voir, en fait, la politique. Et il s'est dit qu'il va euh, écrire ce dans le but de proposer une refondation de la pensée politique. Euh, l'œuvre également fut un projet qu'il a nourri depuis la jeunesse parce que à 16 ans il s'est dit qu'il va écrire un œuvre intitulée Les institutions politiques. On peut dire même que le contrat social n'est rien d'autre que le prolongement des institutions politiques. Mais on ne peut pas également ne pas parler du contexte de publication de l'ouvrage sans pour autant faire la liaison entre Rousseau et certains penseurs euh, comme Jean Baudin, comme Montesquieu, mais également comme Thomas Hobbes. Rousseau, dans son rapport avec Thomas Hobbes, il s'est démarqué de Hobbes quand il s'agit de la légitimité du pouvoir. Parce que si pour Hobbes, le pouvoir légitime peut reposer sur la force, Rousseau pense que le pouvoir légitime doit reposer sur le droit. D'ailleurs, il précise que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le même s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Donc Rousseau, la force n'est pas légitime, la force ne fait pas le droit, il faut plutôt effectivement la loi il faut plutôt des principes qui reposent effectivement sur la loi ou bien le droit. On ne peut pas également ne pas lier ce contrat social à une œuvre de Montesquieu en disant simplement que entre Rousseau et Montesquieu, il y a une convergence de vues. Parce que rappelez-vous, Montesquieu a écrit un ouvrage intitulé L'esprit des lois, où il parle de l'importance des lois. Et si on parle des contrats, du contrat social, on ne peut pas également parler effectivement de l'importance des lois. Parce que Rousseau pense qu'un pouvoir légitime doit avoir comme soubassement le droit. il faut également faire la liaison entre Rousseau et certains de ses contemporains. J'ai parlé de Montesquieu, j'ai parlé de Jean Baudin, j'ai également parlé de certains philosophes du contrat qui sont John Locke, qui s'inscrivent dans la même perspective que Rousseau, quant à la légitimité du pouvoir, parce que John Locke considère qu'un pouvoir légitime doit nécessairement reposer sur le contrat. autant de rapprochements possibles entre Rousseau et certains de ses penseurs qui, euh, je trouve, s'inscrivent dans la même dynamique de l'exercice du pouvoir. Bien, maintenant, de quoi est-il question exactement dans le contrat social il faut dire que le contrat social analyse les principes du droit politique et expose les fondements de la légitimité du pouvoir. Ce contrat nous définit en effet les conditions d'un ordre social juste la liberté et l'égalité sont garanties comme toute forme d'expression, où chacun, tout en obéissant à des règles, communes sans lesquelles il n'y a pas de société organisée n'obéira à personne en particulier. Donc pour la condition de légitimité e dans le peuple souverain. Mais qu'est-ce qu'un peuple souverain? Il conçoit le peuple souverain comme la source légitime en fait du pouvoir. Un peuple souverain, c'est un peuple libre qui à la possibilité de s'exprimer soit à travers des suffrages ou bien qui a la possibilité effectivement de donner son mot quant à l'exercice du pouvoir. Autrement il, cherche à établir la différence entre la monarchie et un pouvoir où le peuple est, est souverain. cest à un peuple qui est, qui est libre. Maintenant, euh, le peuple souverain également euh, renvoie égal, peut renvoyer également à un ensemble, bien à, à une association d'individus. Cette association d'individus sont euh, euh cette association d'individus est régie par un contrat ou bien un pacte social et ce pacte social est le fondement de la légitimité. Mais qu'est-ce qu'on entend par Mais qu'est-ce qu'on entend par pacte social Le pacte social, c'est le contrat social. Il désigne cet acte conventionnel absolument fondateur et originaire qui se caractérise par l'aliénation totale librement consentie liberté naturelle de chaque contractant à toute la communauté, de sorte que la condition à, soit égale pour tous. Ça signifie quoi quand on parle de pacte social ou de contrat social, chaque contrat, contractant doit accepter d'aliéner sa liberté au profit d'une autorité commune, doit faire abstraction de soi-même au profit d'une autorité commune. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut privilégier Non pas l'intérêt personnel, mais l'intérêt, général. Et d'ailleurs, cet intérêt général qui semble justifier ce qu'on appelle la, la volonté générale. Maintenant, en plus de ce résumé, on a eu soin d'ajouter un bref éclairage conceptuel, Nous avons estimé qu'un rappel sommaire du plan de l'ouvrage aiderait peut-être à mieux saisir la quintessence du contrat social Maintenant, comment est constitué, ou bien comment est structuré le contrat social Il faut dire que le livre est subdivisé en, est subdivisé en, non, l'ouvrage est subdivisé en quatre livres et chaque livre est subdivisé en, en chapitres. D'abord, pour ce qui est des livres 1 et Rousseau nous expose la théorie de la souveraineté dans la théorie de la souveraineté. Pour les livres maintenant 3 et 4, Rousseau nous expose la théorie du gouvernement. Maintenant, pour les besoins pédagogiques, c'est-à-dire pour les besoins du programme, nous allons nous focaliser sur les livres 1 et 2 parce que ce sont les parties concernées par euh, euh, ce sont les parties qui sont concernées cons euh, euh par, par, le de terminal de la, euh, de la CIL. Maintenant, que nous dit exactement les livres que disent exactement les livres 1 et 2 Pour ce qui est des livres 1 et Il faut dire que le livre 1 a comme chapitre premier le fondement du droit politique. Mais il faut dire que le livre 1 a, a pour Le livre 1 porte sur les fondements. Le livre 1 qui parle de la souveraineté, du fondement de l'État et de la souveraineté. Maintenant, au niveau du livre 1, au chapitre 1, on nous parle du fondement comme objet du droit politique. Au niveau du livre 1 toujours, au chapitre, du chapitre au chapitre 5, Rousseau nous revient sur, les, euh, sur la réfutation des prétendus fondements. Cela veut dire quoi Rousseau, à ce niveau, nous montre quels sont les fondements qui sous-tendent la, lég et quels sont les fondements qui ne sous-tendent pas les, la légitimité. Et parmi les fondements qui ne sous-tendent pas la légitimité, il y a la force, il y a effectivement la nature. Toujours au niveau du livre 1, les chapitres et les, du chapitre 6 chapitre 9, on parle de la fondation du principe de souveraineté. Maintenant, concernant le livre 2, euh, les chapitres 1, 2 et 3 définissent les principes de la souveraineté. Euh, les chapitres et 5 parlent de la souveraineté comme puissance. les chapitres 6 et 7 parlent de la loi comme manifestation de la souveraineté. Les chapitres 8, 9 et 10 nous parlent du souverain ou, de la théorie du peuple. Le livre de toujours, les chapitres 11 et 12 nous parlent de la liberté et de l'égalité comme effet d'un fondement légitime. Donc voici effectivement la structuration de l'ouvrage concernant les livres 1 et 2. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Concernant euh, du contrat social, il faut dire que c'est un ouvrage qui est très actuel au regard des thématiques qui sont développées, parce que ici on nous parle principalement de la légitimité du pouvoir politique. Et ici, on place la souveraineté ainsi que la volonté générale au cœur de l'exercice du pouvoir. Donc, un peuple doit être souverain et un peuple doit s'exprimer et dans l'expression du peuple, il doit effectivement, on doit sentir effectivement la volonté générale. On ne peut pas également parler du contrat social sans parler de l'apologie de la démocratie, parce que c'est un livre qui l'apologie de la démocratie. Parce que la souveraineté et la volonté générale ne sont que des principes de la gestion démocratique. Donc voilà ce que j'ai eu à préparer sur le contrat social et je pense avoir dit l'essentiel. Peut-être le temps ne nous permet pas de développer davantage et il faut comprendre également que le contexte qui a été choisi pour euh, présenter cet exposé, c'est un contexte, contexte qui a été très contraignant, mais quand bien même nous avons essayé un temps soit de présenter quelque chose. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Mhm, Tout à fait. Mmh. <laughs> Mhm. relation monsieur Sey euh, le contrat social et nous invitons euh, aux élèves ou aux intervenants de pouvoir prendre la parole pour poser des questions afin d'avoir plus d'éclaircissement s'il y a des zones d'ombre. Alors, euh, je vais m'aventurer à glisser un peu sur le terrain glissant de la philosophie même si c'est très risqué je vais essayer de dire ce que moi j'ai compris comme étant le résumé des différentes interventions que monsieur a dit alors selon ce que moi j'ai alors le contrat social repose essentiellement donc sur la notion de droit c'est-à-dire un pouvoir n'est légitime que si et seulement si ce pouvoir repose sur le droit D'où donc l'importance des lois qui constituent donc les soubassements de la force d'une société. La société donc doit reposer selon Jacques Rousseau sur euh, la notion de droit et de loi. Et par conséquent donc, le peuple souverain est le seul qui euh, est apte à faire voter des lois à donner le pouvoir à un dirigeant qui dirige pour le bien du peuple et que s'il doit user de la force que le peuple lui a confiée, cet usage doit reposer essentiellement sur le droit et sur la loi. Et par conséquent donc, la loi constitue donc la notion fondamentale qui sous-tend le contrat social. Donc voilà comment moi compris la chose, Monsieur Sey, si effectivement il y a des choses qu'il faut extraire. vous avez vraiment la parole donc la parole au public incha waaw waaw waaw sëñ kees. Voilà, Monsieur Sey, nous avons reçu un certain nombre de questions que je vais vous lire les unes après les autres, ou bien je vous donne directement la feuille que vous consultez. Hmm. Alors, euh, il demande qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le pouvoir? La deuxième question, c'est quel est le rapport entre la science et la philosophie <laughs> Alors, est-ce que la philosophie est une science Et est-ce que la philosophie existe réellement C'est, c'est, c'est, c'est juste euh, une petite euh, contribution euh, pour remercier tout d'abord monsieur, monsieur, monsieur Sey pour cette propre profonde et cette riche communication qu'il a faite alors sur, le, sur les fondements qui doit sous-entendre Alors, euh, l'exercice du pouvoir, selon euh, Jean-Jacques Rousseau, ou bien euh, Machiavel, depuis le 15e siècle, qui a beaucoup influencé euh, la science politique. selon ce contrat social dont vous aviez parlé, Euh, l'autre contrat social euh, qui avait fait l'objet de ma, de ma communication. Euh, pour les fondements, ici, la volonté publique ou la volonté populaire euh, euh comment, comment définir cette volonté publique-là ou bien cette volonté et populaire, d'autant plus que j'avais lu quelque part, euh, je ne sais pas si c'est Montesquieu ou euh, Rousseau, qui disait que pour découvrir euh, les meilleures règles de société, il faudrait une intelligence supérieure qui vit toutes les passions des hommes et qui n'en éprouva aucune. car chaque législateur met ses intérêts dans les lois qu'il promulgue. Aristote, en tant que législateur, aimait montrer sa jalousie vis-à-vis de Platon, extra pour montrer si on se réfère à la volonté populaire euh, incarné, représenté par quelques groupes, par quelques autorités, et que ce soit. Est-ce que cela, par rapport à ce contrat social qui renvoie à la volonté divine, qui renvoie à la sagesse divine, cette volonté qui s'est révélée à ses euh, messagers par rapport à l'objectivité du pouvoir, par rapport à l'objectivité des fondements sur lesquels on se basait, euh, par rapport aussi à, à, à, à l'omniscience et à la totalité des sciences qui cernent toutes les causes. Et je crois qu'un législateur américain disait aussi, la loi en Amérique n'a qu'un rapport très limitée avec l'application des devoirs moraux. Un citoyen américain peut parfaitement respecter la loi et être cependant corrompu sur le plan moral. Et on a trouvé de, beaux législateurs, mais leur vie quotidienne, qu'on a bien connue, est tout à fait en contradiction avec le beau prétexte qu'ils prônaient. Ici, l'objectivité et les vrais fondements et euh, qui pourront vraiment être objectifs, est-ce que ça peut venir des êtres humains ou bien ça ne peut venir que d'une euh, euh, euh source enseignée par Je crois que ça, c'est l'un des points, de, de, points, point euh, qu'on peut quand même souligner davantage entre les deux contrats sociaux. Voilà, c'était une petite, petite, petite contribution que je voulais euh, faire, mais euh, euh, tout en vous remerciant par cet exposé très posé, très, très riche. Et euh, vraiment, euh, euh, merci beaucoup, monsieur Mashallah, merci. merci. Merci, merci Imam pour cette euh, contribution qui est de facture. Euh, j'aimerais seulement ajouter concernant la volonté générale dont parle Jean-Jacques Rousseau. Ici, on fait allusion à l'abstraction du contractant. Cela veut dire quoi? Il doit renoncer à son intérêt particulier et doit accorder la primeur à l'intérêt commun. Maintenant, si le contractant accorde de l'importance à l'intérêt commun euh, au détriment de son intérêt particulier, et tout cela va dans le sens de l'intérêt général. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec celui qui, effectivement, dans son rapport euh, à la société, a comme référence principale la, la force divine ou bien la divinité. Euh, Et de ce point de vue, si la volonté générale s'exerce, c'est la volonté du peuple, mais c'est une volonté dont le soubassement n'est rien d'autre que l'intérêt commun et non l'intérêt individuel ou bien l'intérêt crypto-personnel. Et de ce point de vue, je ne vois pas de contradiction avec euh, celui qui met au devant la morale ou bien euh, qui, dans ses rapports avec les individus, euh, privilégie surtout la morale ou bien l'éthique. C'est juste en fait une euh, précision concernant la volonté générale dont je euh, viens de parler. Maintenant, concernant la question, qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le pouvoir dans la perspective de Rousseau, celui qui obtient le pouvoir est celui-là à qui on délègue le pouvoir sur la base d'un contrat. Et celui-là à qui on délègue le pouvoir sur la base d'un contrat. Qu'est-ce qui se passe Ce sont les contractants qui renoncent à leur liberté qui renoncent à leur intérêt particulier et acceptent de faire une, euh, abstraction d'eux-mêmes au profit d'une autorité commune qui se charge effectivement euh, de gérer euh, le pouvoir, qui se charge effectivement d'exercer l'autorité dans le but de veiller à la stabilité so sociale. Et je pense bien que le contrat social tel que institué par Rousseau n'est pas différent de ce qui se passe actuellement dans les régimes démo démocratiques. Parce que celui qui exerce le pouvoir, c'est celui qui a été choisi par tout un peuple sur la base de suffrage. Et de ce point de vue, si le peuple choisit, c'est comme si la volonté générale s'est prononcée. Et de ce point de vue, celui qui exerce le pouvoir, il l'a obtenu sur la base d'une délégation et le moyen par lequel effectivement s'effectue cette délégation n'est rien d'autre que les suffrages. Je pense que c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Maintenant, la question rapport entre la science et la philosophie, je pense que ce n'est pas une question qui est en phase avec la thématique, mais concernant le rapport entre la science et la philosophie, euh, pour examiner ce rapport, il faut le voir sous différents angles. La science, tout comme la philosophie, sont des ordres de savoir. Autrement Elles répondent toutes les deux à un souci explicatif. De ce point de vue, leur ambition est commune. Seulement, ils, ils partagent également certaines caractéristiques telles la rationalité, la dimension critique, mais aussi le caractère désintéressé. Mais au-delà de, cette, euh, euh, de ces traits communs, on peut voir en elles des, des divergence du point de vue de leur approche parce que la science, dans son rapport à l'objet, l'appréhende de manière restreinte. Autrement dit, la science a un objet délimité, Il, elle cerne son objet, elle l'embrasse dans sa particularité, alors que quand il s'agit de la philosophie, elle s'intéresse dans la globalité, elle s'intéresse sur la totalité. Et de ce point de vue, la philosophie a une approche globale alors que la science a une approche parcellaire. Il y a également des divergences du point de vue de leur conception euh, de la vérité, parce que la vérité philosophique, le philosophe a un rapport particulier à la, avec la vérité. C'est une vérité qui est subjective. C'est pourquoi les philosophes ne sont, pas, ne sont jamais d'accord, alors que quand il s'agit de la science, c'est une vérité objective. Euh, c'est une vérité qui a été établie sur la base d'une démarche et portant sur un objet précis. Bref, il y a deux points de convergence, mais également il y a des points de divergence. Du point de vue de l'efficacité et des résultats, effectivement, la science semble être beaucoup plus efficace que la philosophie, parce que la philosophie, compte tenu de sa dimension théorique, n'est pas préoccupée par le résultat, parce que en philosophie, à chaque fois qu'une réponse a été fournie, aussitôt il y a une question qui surgit, ce qui fait que les philosophes ne sont jamais à bout de leur questionnement, alors que quand il s'agit de la science, La marque de fabrique de la science, c'est la précision, c'est le consensus. Donc il y a pas mal de divergences la philosophie et la science, au de quelques similitudes. Je pense que... Mmh? Mmh. ci exposé moom solo bi nga def nii jàpp naa ne élève bi rawatina élève terminal yi génn nañ ay leçons yu bëree bëri dina leen jëriñ ci liñ ñëw ci gàtt kon ñu ngi leen di jaajëfal moom monsieur Seye ak Sebadji di jaajëfal aussi imam Assane ak Oustaz Khalid euh, Pape Madiène parce que 14 heures jot na te dañu ko 13 heures dañuy jeexal ñu des bi rek ñetti kàddu yu di kàddu monsieur le maire incha allah di kàddu directeur des études docteur Ahmed Moukhtar Lo ci tur école bi kàddu ci di kàddu direction de l'île su ko defee ñu jox suñu bàyyi Fallou ci mu sant mbooloo bi waaye defal leen ñaan ñu yëkkati jataay bi kon dañ jox monsieur le maire ci ñetti minute ñeenti minute incha allah euh, bu ko defee ñu jàll ci kàddu institut bi monsieur le maire bismillah Abdou Karim Sy merci oustaz euh, ñu ngi commencé suñu kàddu di wax asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne fekk nañ leen fii ci turu sela le maire di nuyu le directeur de l'institut islamique di nuyu euh, les deux conférenciers monsieur Sey Imam Hassan di nuyu monsieur Ndiaye représentant du directeur du livre que je remercie de passage parce que au temps bi ñu nekkee le président du foyer des jeunes doon nañ liggéeyandoo le directeur du livre monsieur Lo bam ñu doon jàppale ci ay livres yu bëri bëri donc ñu ngi koy remercier di la yóbbante ci moom di ko féliciter bu baax a baax a baax au nom du maire di rafetlu bu baax vraiment ndaje yu mel nii. ndax dajeem xam-xam la ci biir loolu aussi monsieur Seye dafa am lu am solo lu mu def ak euh, imam Assane comme ni ma ko bëggee di wax rek di contrat social ou di principe du droit politique donc bi ñu nekkee au niveau de euh, terminal man noonu laa ko doon jàppee parce que foofu aussi comme on dit Rousseau dafa proposer un pacte citoyen entre dans le but de remédier les inégalités persistantes de la société au temps. Donc, il a examiné aussi les conditions essentielles et circonstancielles d'une société légitime. donc loolu buñ ko xoolee tey par rapport ak euvre bi sëñ Massakhir Lo def daal koy euh, comparer ak sama Amadou Bamba en même temps aussi ak El Hadj ñu xam ne ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu defaree la société sénégalaise ba mu mucc ci le colonialisme li nga xam ne préparé woon na ko tey pour tas suñu réew yi donc je pense que ne pertinence su ñaari euh, conférence yi foofu la nekk d'autant plus que tey ñu ñëw di wax ci la livre le livre mën na ci wax lu bëree bëri duñ ci jeexal waaye indi ci aussi auteur parce que bu auteur amul livre du am donc le droit d'auteur dafa am solo tey bu ñu ñëwee fii ci institut islamique nga xam son rôle ku nga xam depuis le début de sa création mooy tey jàngal xam-xam mais yar nit ki teg ko ci koo xam bu pare day nekk model fini de la société tey ji loolu li gone gi doon wax sànq naan kokki dafa tardé dafa comprendre loolu ba tax na tey ñun en tant que dirigeant au niveau de la commune de Koki dañuy fier ci li Koki doon dañuy fier ci li kokki produire li ñuy wax naan li mu defaree réew mi Sénégal kokki da koo defar ci Touba ak Ndakaaru parce que dañuy wax sax banaan naan ñi sanc Touba ba Touba dëgër sañc Ndakaaru kokki lañu cosaanoo donc loolu jàpp naa ne doy na doy na tey ñu xam fu dool tolluwaayu kokki toll maintenant da euh, ci wetu infrastructure aussi ak ni kokki di taxawee sur tous les domaines que ça soit santé éducation environnement euh, euh, li ñu naan le transport dama ak dikk tey ku gis xam ne vraiment Koki mu ngi ci mu ngi ci yoon wi donc yéen aussi en tant que ndaw di ndaw ci daara ji comme ci école yi muy lycée muy ci les collège gis nañ tey li nekk ci yéen euh, xam-xam bi ak taxawaay bi ak ni ngeen représenté Koki dignement loolu tey jàngalekat yi nekk ci bërëb yooyu ñoo ko def kon tey je pense que ne. muy la commune de Koki ñun aussi en tant que dirigeant dañuy rafetlu lii di wax ne tey bu ñu demee ba Koki tey les l'institut islamique jël di célébrer journée internationale du livre et du droit ñu indi ko tey fii nii indi fi des éminents professeurs ñuy jàngal xale yi di ñuy jàngalaale ñun je pense que ne tey dajaay ndaje gu mel nii mënuñoo am lu ko gën dans la matière de l'éducation donc tey vraiment le maire absenté. Euh, mi ngi rafetlu lii di ko wax ne vraiment bëgg na aussi parce que boobu ba ñu ngi ko doon wax dans programme ne bibliothèque bi nga xam dafa nekk fii tey ci daara ji nga xam laa mairie daf ci am rôle bu mu ci war a def ñu sële un partenariat waxtaan xool lan lañ mën a apporter sur le plan peut-être matériel ou bien plan financier pour contribuer vraiment à l'essor et vraiment au résultat même de de de de bibliothèque mais aussi de leurs activités donc loolu vraiment monsieur Lo Baye Modou ñu ngi la koy joxaat ci turu monsieur le maire di wax ne pare nañ pour kon ne liggéey boobu ànd ak yéen ci loolu ba vraiment ni ñu koy defee ci yeneen vole yi muy ziare daal jeg yooyu ñu mën koo def fii nga xam ci mooy bërëbu xam-xam ak bërëbu jàngukaay bi donc di gàttal parce que vraiment li ñu fiy dégg tey dal na suñu xel mais aussi comme ñu ngi naaj ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu monsieur maire jërëjëf. Euh, Euh, dañuy jox kàddu gi incha allah euh, directeur de l'Institut Ahmed Mokhtar Lo incha allah ci comme temps bi dañoo xool xam naa six minutes sept minutes incha allah mu tënk ñu ñëw ci monsieur euh, euh, bismillah bismillah bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah alladi anzala ala abdihi alkitaba walam yajcal lahu iwajan qayima wa sallallahu wa sallama ala man buisa muallima sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi fi teew ci jataay bi ak ci bis bu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ci turu kilifa barab bi di cheikh na alhaaj muxtaar naarloo ak ci turu jàngalekat yi fi teew yëpp oustaz sidina al oustaz cheikh suur al oustaz mahamad fadel kebe oustaz ali badra sise ak oustaz bachir jaxate ak mbooleem jàngalekat yi fi teew yépp ci seen tur noo leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi nag sun gan ñu tedd ñi ci njiital euh, professeur Amadou Ndiaye mi nga xam ni moo fi teewal docteur Ibrahima Lo mi nga xam ni mooy directeur général mooy directeur livre fële ca Dakar mu nekk direction boo xam ni ño ma ngi topp ministère de la culture léegi nag ma ngi topp secretariat général biñ ñu dénk culture ci Sénégal muy lépp lu aju ci xam-xam ak cosaan ak aada ak yar ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di rafet lu tànn gi nga xam ne moom lañ tànn kokki tànn ko daaray kokki ngir euh, célébrer fi bis bu màgg bi nga xamante ni àdduna moom lañ jagleel téere jagleel ko bindkat yi euh, tànn nañ fi ñu war a tànn ndax fii barabu téere la téere bi moo fiy jub ndax téere bi fiy jub mooy téere ndax yeneen yi ci leneen lu ñu tudde téere euh, annexe la ci téere waaye téere dëgg mooy benn benn la mooy téere bi yàlla bi ji des yëpp ay ay kii la rek ay ay ay la ak i jéem-jéem yenn yi sax ay caaxaan la rek ak ay mbuso waaye du du téere kon téere dëgg mooy téere bi yàlla comme ni Cheikh Bamba wax kitaabu rabbiyal kitaab bi nassi zalikal kitaab bu ñu wax dëgg moom mooy téere bi yàlla bi ndax mooy téere bi nga xamante ni comme ni ko anzala a abdihil kitaaba walam yaj'al lahu iwaja amul lenn lenn loo xamante ni mën nga ci mën nga ko cee contesté benn virgule kon mooy téere ndax mooy njub mooy constitution mooy loi dëgg dëgg dëgg mooy téere bi yeneen yi ci des yëpp ay ay ay ay kii la ay ay ay ay ay interprétation ak yenn yenn yi sax ay ay caaxaan la comme li suñu sëriñ bu mag buñ daal def Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Niass daan wax euh, nee na ma Napoléon wa Marx Marx bi muuxan alayhim fa daan ka xabaala nee na ñu bari seen luwaay yi ñu ngi koy jëlee ci Napoléon ak Karl Marx nee na ñooñu kenn wàccewul ci ñoom ay wax yu da kenn wàcc nee boobu boo bëggee jub da ngay bàyyi caaxaan waaye lu ñu wax nga ne Marx nee na Napoléon nee na wala Montesquieu nee na wala Rousseau dëgg la ñoom ay doomu aadama lañ waaye téere dëgg mooy téere bi yàlla bi kon loi dëgg mooy alquran constition dëgg mooy al alquran yi ci des yëpp euh, yu doomu aadama yi taxawal la Euh, lu ca jub dëppook alxuraan baax na lu ca jubul nag dañ koy sànni ca àll ba waaw bu ñu neexee ñu gëm ko euh, buñ ko buñ buñ ci mënul dara tamit dañ ko naqarlu waaye duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko ko def ci suñ xol duñ ko duñ ko duñ ko gëm bu ñu ko imposé tamit dañuy ñaan yàlla rek bis ñëw loolu ñu imposé woon dañ waaye du tax ñu ñu accepté ko kon téere ci islaam ak jàng ci lislaam moom lañ tàmbalee moom lay tëjee moom la moom la moom lañ moom la jullit bi di tàmbalee moom la tëje moom lay tëje moom la nit ki di tàmbalee moom lañ sàkku ci nit ki moom mooy tëj tamit liggéeyu nit ki ndax fi mu tàmbalee mooy iqra bismi rabbik fa muy tëje mooy iqra kitaabaka fa muy tëje mooy iqra kitaabaka foofu lay qiraa a jeexe iq fi mu tàmbalee mooy jàngal fa muy tëje mooy yowmal qiyaam ñun la sa téere baa ngi nii sa jëf yaa ngi nii iqra kitaabaka moo tax euh, kilifa gu mag ku ñu wax sëriñ baabu yàlla na ko yàlla guddal fanam lool nekkoon amir jamaa bi rabat rahman day wax naan man ci diggante ñaari qiraa yooyu ndax dara xaj na fi ci dunduk doomu aadama diggante iqra bismi rabbika ak iqra iqra kitaabaka kon kuy jàng war ngaa xam li ngay jàng lan la kuy bind tamit war ngaa xam li ngay bind lan la ndax xam-xam du lépp am njariñ dañuy fa fil ulumi comme li Cheikh Ahmadou Bamba wax fa fil ulumi wa yujibul kibra wa yunsir rabba am na xam-xam yoo xamante ni day soriloo nit ki yàlla di wowal xolom di def ci moom ak rëy di def ci moom ak euh, arrogance mu defe nii moom lépp ci moom la comme la na wax la mu waxoon innama utiituhu ala ilmin indi kon alquran loolu la ñuy foofu la ñuy orienté ci njàng kon loolu lañu ñu war fexe ba suñ société yi société musulmane bu ñuy célébrer bis yu mel nii ñu xamal leen nan la ñu war a jànge ak lan la ñu war a jàng du lépp lu ñuy jàng am na njariñ du lépp lu ñuy liir tamit am na njariñ du bépp téere buñ bind tamit am na am na njariñ kon euh, loolu moo tax direction du livre ñu ngi koy sant bu baax a baax bi mu fi taxawalee mag maktaba bi jaarale ko ci CESCO maktaba bi bibliothèque bi yàgg def ay liggéey journée bi njëkkoon nañ ko fee célébrer ci mille 2004 tey ñëwaat nañ célébrer ko ci njiital Ibrahima Lo docteur Ibrahima Lo muy ku am taxawaay yàgg yebal Ahmed Amin Lo mi suñ doomu baay mu yàgg a taxawee liggéey bi mu nekk koo xamante ni ku xer ci liggéey bi kon ci turu sëriñ bi ak ci turu jàngalekat yi ak ci turu oustaz Mouhamed Faty Cissé nga xam ne moo yore bibliothèque bi ak ci turu ñiy jariñu ci bibliothèque bi yëpp noo ngi sant waa direction du livre bu baax a baax a baax fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi seen taxawaay rafet na lool. Eh, di ñaax tamit suñ mbokk yi nga xamante ni ñoom la bibliothèque bi seen bibliothèque la ñu gën a góorloo ci ci jàng ak liir ndax liir bari na ay defi défi yi gën a mag ci défi liir yi mooy yii intique bi. nouvelle technologie bokk na ci li gën a gàllankoor liir ci àdduna bi ba boo demee ci réew yoo xam ne sax ñoo ci gën a xarale ñoom am na possibilité yu ñuy ubbil seen doom yi ba nga xamante ne duñ mën a am duñ mën a am te duñ mën a am accès ci yii bañ mën a concentré wu ci liir chinois yi nga xam ne TikTok ñoo ko keree créé TikTok duñ ko Chine du xale yi dañuy jëfandikoo TikTok wala buñ koy jëfandikoo tamit jëfandikoo bu limité lay doon ca ñoom ñoo keree créé TikTok pour ñeneen ñi jëfandikoo ko ñoom seeni doom ah, wutal nañ yeneen yeneen yoo xamante ni ay jeux yoo xamante ni ay créativité nu ñuy créer ay ordinateur nu ñuy créer ay portable nu ñuy créer lañ ci kii waaye du du ay TikTok du du du nekk ci TikTok kon war nañoo fexe ba orienté xale yi ci liir ci ñu yii ñuy jëfandikoo ñu teg ko ci suuf xam ni amul benn njariñ waaw amul benn njariñ mën naa am euh, moyen la pour jokkoo ak pour pour pour pour pour communiquer waaye Euh, jël sa temps bépp def ko ci loolu amul benn njariñ kon yooyu ay défi la am na yeneen defi tamit waaye defi bi gën a mag bi ma gis jamono yi bi gën a mag mooy euh, di sant bu baax a baax tamit suñ mbokki conférence yi sun xarit sun mag al oustaz imam Assane Seck euh, jànge fii ci daara ji mokkal alquran jóge fi dem ndar jàng majalis ah jàngam mépp majalis la ko def waaw lii ngay gis ngoy wax ci tubaab ak yëpp majalis la ko jànge ah jóge fi dem Mauritanie ba nekk traducteurs yi gën a ràññee ko ci àddina bi am centre bu mag tudde ko saydul xaatir di tarjama di traduire livre yu bari rawdu rayahin ci Touba livre yi bind ci Cheikh Ahmadou Bamba ci at yi yëpp traduction bi biñ koy traduire français moom moo ko traduire ah euh, président Macky Sall euh, yàlla na ko suñ borom defal tawfiq ci li li mu dese ci dundam nekkoon njiitu réew mi liggéey liggéey bu ràññee ko ci réew mi bi mu bindee téereem boobu tudde ko Sénégal au cœur bëgg ku ko traduire arabe imam Assane Seck mi la ko jox moo ko traduire moo traduire livre boobu ah, ak yeneen yeneen livre yu am solo yoo xamante ni yëpp traduire na ko ah, nekk koo xamante ni kuñ xam la ci ci ci ci ci ci ci jàng ak jàngale kuñ xam la ci liggéeyal lislaam ah, ak euh, di ko sant bu baax a baax di ñaan xale yi ñu roy ci moom waaw ñu roy ci moom ndax dañ ne wax naan alwaajibaatu aksaru min al awqaat waaye moom da ay awqaatam maanaa devoir yi moo ëpp temps bi nit ki lim am li ko war ci àdduna moo ëpp lim am ci temps waaye moom da temps boo xoolee lim lim inta lim produire lim bind ci livre lim traduire da nga xam ni moom temps jëfandikoo ko jëfandikoo na ko ni mu ko war a jëfandikoo di sant bu baax tamit al sun mbokk Mouhamad Sey di rakki sun mag Babacar Sey dëkk fii Thièyeen waaye Thièyeen ak philosophie moom xam na waa waa waa alhamdulilah waaye di philo philo philosophe bu mag a ko xër ku généreux ci ja joxe falsafa ak ak ak ak ak di ko jàngale euh, di sant ñi ñu àndaloon liggéey ñoom Oustaz Abdou Khadir Seck ci communication bi ak Oustaz Ahmed Diop ak mbooleem ñi nga xamante ni jàpp nañ ci journée bi ba mu agsi fii fas yéene jox kàddu gi al Oustaz Ahmed Diop ama Ahmadou Ndiaye li des ci kàddu sëñ bi oustaz Fadel Kébé dana ko dana ko àggale dana ko jàllale macha euh, tëjaane jataay bi ñu ñaan suñu borom subhaanahu mu defal ñu tawfiq bañ fee dajawaat ay at di célébrer euh, journée bi tamit suñ mbokki jàngalekat ci seen bis bi muy bisu suba bi di bisu liggéeykat yi muy fête 1er mai nekk férié nekk feetu bépp liggéeykat ci àdduna bi ñoom leen ci ndokkeel di ndokkeel suñu euh, jërëjëf docteur Ahmed Moukhtar kon dañuy jox kàddu bi monsieur Amadou Ndiaye incha allah muy wax ci turu direction de livre euh, ci diiru fukki minute rek incha allah euh, su ko defee ñu jox suñu ay fàmm mu tëj jataay mbokk yi xale yi ñu bàyyi ko xel baax a baax ñii ñooy jógee ba direction de livre distance bu gudd ak coono yeeg yëpp wala ngeen may leen nopp te bàyyi xel kàddu gi incha allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqtata min lisaani yafqahu qawli mbooloo mi fi teew asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ci turu madame le ministre de la culture madame le ministre de la jeunesse des sports et de la culture ak ci turu monsieur le ministre secrétaire d'État à la culture waaye ci turu Ibrahima Moktala Lo directeur du livre et de la lecture ak ci turu délégation bi nga xam ni ñoom laa àndal fii bokk na ci Mouhamadul Amin Lo madame Seydi Fatima si madame Ngom Mbayang Ngom madame Diallo Kadiata Baldé waaye Amina Lo Diop madame loo du aussi oustaz euh, Cissé mi nga xam ne ci ñun la bokk donte fi la teew di yëkkati kàddu yi nuyoo yi gën a sell yi gën a tedd di ko teg ci loxo directeur institut bi di Ahmed Mokhtar Lo mu jotalil ko waajuram wu tedd di suñu waajur El Hadj Mokhtar Naar Lo mu jottali ñu ko monsieur le représentant du maire Abdou Karim Sy xam naa sant bi day na waar wante kàdd yi muy yë yëkkati moom yëbbaale na ko mu joxal ñu ko ñaari conférenciers di jour yi joxal ñu ko ñi nga xam ni ñooy jàngale ci institut bi waaye joxal ñu ko ñi nga xam ni ñooy ndongo ci institut bi mu jottali ñu ko waa dëkk bi yëpp. mu mel ni wolof dafay wax ni ku wal mburu tudd dëkk direction di livre et la lecture dafa wal mburu tudd kokki lu waral kokki monsieur Cissé wala oustaz Cissé fàttali na ko léegi UNESCO ci résolution numéro 28 slash C 3 du 15 novembre 1995 dafa jagleel at mu nekk ci bésu ñaar fukkeel ak ñett weeru avril tuddee ko journée mondiale du livre et du droit d'auteur maanaam jagleel ko bindkat yi ak seeni àq àq bindkat mu jublu woon ci rendre hommage ñi nga xam ne ci mbind mi ni ko directeur institut bi wax ñi bind téere yi amal njëriñ doomu aadama ku ci mel ni Shakespeare ku ci mel ni Cervantes waaye bu ñu fàttee suñu bopp suñuy maam Cheikh Ahmad Bamba Seydil Hadji Malick ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ni bind nañ ko ñu war koo ndamoo war koo tiitaroo mu di ay ndono yoo xam ni war nañ koo topp yépp pour wane solo ci njàng téere bi nga xam ni am na ko loolu nag su ko defee mu dellu ci wàllu culture culture ak aada ministre de la culture ci discours bi mu doon def keroog le 23 daf ciy wax mu ni si la culture est un antidestin qui libère l'esprit de toutes les formes de pesanteur et aide à maintenir l'espoir, le livre pour sa part reste l'intrant qui symbolise le plus l'idéal de partage su fekkent ni nit ki adama cosaan dina tax bu du am benn gàllankoor wala lu koy faagaagal ci li nga xam ni moom la ko yàlla jagleel ci nekk gi muy nekk ci ko suuf téere bokk na ci li nga xam ne moom moo gën di màndargaal li nga xam ni doomu aadama war na koo mën a séddoog moroom kon mu doon loo xam ni kenn waru koo sàggane di ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant nag waa Koki ak ñi sas li ci taxawaay biñ ci am ci taxawal école bi waaye ci forme ñi ci formation boo xam ne bi dañ ko sukkandiku ci téere ci téere di cëslaaya su ma ko doon wax di tubaab dama naan fii le livre est au cœur du processus de l'enseignement de la connaissance ndax dina la tere réer te bépp support boo xam ne wala jumtukaay boo xam ne nit dina ci sàkkoo xam-xam téere nekk na ci loo xam ne bi ñu ko doon wax ci tubaab dañ naan c'est celui qui la culture de durée boo fàttee woon ab xët walla paragraphe da dellu ci téere ba dellu ci page ba dellu ci ligne ba l'information demeure actuelle dara lu ci soppeeku yeneen jumtukaay directeur bi wax na ko mu mel ni portable tablette ak yeneen ak yeneen yëpp baax na waaye dafa am loo xam ne daf ciy dox bu courant coupé woon doo ko jëfandikoo donc C'est des supports, mais qui véhiculent la culture de l'éphémère par opposition à la culture de durée. téere bi nag mu ngi téere réer boo jëloon rek ci wolof téere da lay téere réer lu lay téere réer gàllaaj la waxoon naa ko léegi bi ñuy ziyaar sëriñ bi naan wolof dafay lépp waaye dafay faral di wax buy wax keneen lay waxal ne soo xamul foo jëm wàññeekul fi nga delloo woon waaye dama yaakaar ni kii wàññi fi nga jógee woon dafay fekk nga xam fa mais soo foo xamul doo fa delloo da ngay sàmp ji te kon suñ ci sukkandikuwul dafay waral réer gi nga xam ni moom lu tubaab bi tuddee ignorance kilifa bu baax nekkoon ci dëkk bi yal na yàlla yeesal yërmandeem ji moom yokk leeram ci barzak mu ni l'ignorance n'est pas forcément une absence de culture mais les éléments culture dont on ne se sert plus constituent un signe inquiétant de l'ignorance réer nekkul rek ñàkk xam-xam waaye mi ngi commencé ci sàggane jumtukaay yi nga xam ne ñoo lay tere réer donc nag bu ñu ñëwee ci ki gis fi li ñu fi gis tey niñ ko santee yàlla gis loo xam ne li téere def na ko ci jeexital ci xale yi ñi fi présenté seen poème yi lakk ko ci arab boo doon dégg xale bi di lakk arab doo xam ndax arab bay wax am ku ñuul la ni man moo koy wax boo déggee xale bi di ko lakk ci anglais noo xam ndax tubaab bi moo koy lakk wala ku lakk ki ko moo koy wax yàgg di ci gërëm bu baax nag monsieur Ndaw dama jukki rek tudde noonu ni mu ko liiree ci anglais bi ci diction bi ci registre bi te monsieur Ndaw su ma ko loon ab ba di la ko delloo ni ko waa ji waxee woon dafa naan the best way to learn a foreign language is to try to speak like the native speakers da nga koy roy ba nga xam ni boo koy wax kenn du xam ndax da nga ko namp wala da nga koy jëggaani et au làkk bi kenn namp ko ku juddoo Kër Duwaar boo jegee làkk baawule baa bete donc nañu fonk téere yi fonk njàng mi delluwaat ci kàggu yi roy ñi ñu war a roy waruñu woon jëggaani de bu ñu demee nag ba yàlla baaxee ñu ci jamono ñu xam ne njëriñ bi am na nañu waññeeku te sàkk ko mu mel ni nag ni ko xale bi laajtee woon léegi ci di ci gërëm bu baax a baax Oustaz Cissé ci tontu yi mu joxe journée mondiale du livre dañ ko tànn ci le 23 léeg mu tombee dimanche léeg mu tombé leneen mënuñoo dem fépp dañ koy defal nag programme at yi weesu dañ daan dem ci lu ci mel ni ay prison parce que dañ ci aussi wane suñu solidarité am na ñoo xam ne nattu dana leen ñu nekk ci ñun la ñu bokk gàllankoor la bi leen yàlla teg ci jamono bi ñu ci génnee ñu jox leen ay jumtukaay ay livre ñoo xam ne dañ leen permettre ñu ci jàng ba génn foofu ñu nekk génn faa xam-xam dellu amalaan njëriñ mi seen askan seen société ñu dem ci ay bërëb yoo xam ni dañ fay dembale ay xale yoo xam ni dañoo judduwaale ay laako waxoon naa ko keroog te xale yooyu ku leen xool nga xam ni jombul kenn ci doomu aadama yàlla wërsëgal ko lu ni mel te ku leen juróon yërëm leen donc ñu dellu ci ñooñu manifester seen solidarité dimbale seen i fu xale yi reetaane ñoom itam ñu reetaan ànd ak seeni waajur bég tey nag ñu tànn kokki def ko le 30 parce que mënuñu ko woon def du caagi néewal du jàgg ni tiital tuutal mais jàpp leen ni diñ ko doon fësal te jàpp naa ni lii taxoon ñu daje fi tey lii firndeel na ko vous conviendrez avec moi qu'on a passé une très belle journée xam-xam génn na fi nit yi génn ni fi waaye gënaat nañ xam suñu bopp lu muy wënd nag mooy ñu gën a defaraat suñuy toogaay di leen xamal rek ne ci turu docteur Ibrahima Lo ministère de la culture mi nga xam ni bu mu taxawalee programme CLAC ak francophonie daf ko sàpp ji ci ICESO taxawal yu ni mel docteur Cissé ki oustaz Cissé wax na ko sànq CLAC bii ci la bokk institut islamique ci la bokk Pire ci la bokk Daaru Marnaan ci la bokk Médina Gounass ci la bokk bu ñu amee suñu sago dañ koy yaatal ndax amul un citoyen de seconde nature de seconde zone nous sommes tous d'égale dignité te loolu bu ko tubaab di wax day fàttalu kàddul yàlla ci ñu fi tam ñëpp ay borom xamal xam ne yàlla ci boppam moo njëkk ni inna akramakum indallahi atqaykum donc ñu jox ku nekk gëddëm jox ku nekk solo te dana ciy baax nag léeg ñu toog càmbar ko xool yeneen ren kooku ki moo aye woon déwén ñeneen danañ ko def parce que keroog le 23 sama collègue bi jógee Louga def nañ ko waaye li kukki kukki di jógee Louga il faut ñu ñëwaat fi jox ko kii place am ñu indaale ci délégation bi nag loo xam ne dafay màndargal solo su kukki mooy oustaz Seck mi di indaale conférence bi mu fu def li ko tubaab doon wax li ko wolof doon wax oustaz Seck dafa delloo mbattu ci ndaal yi mu naanee woon lii nag mu doon jeexital ci taxawaayu mag ñi xam naa ñu bañ koo guddal ni nga ko waxee woon lu duuf ci nag bi xejul ci cin li te ñi ñu yónnee woon li ñu waxoon ëpp na lii waaye su ñàkk koo mate ak ñàkk koo man moo tax duñ leen ko waxee ni ñu leen ko waxee ngeen jàpp daal ni kàddu gi li ci jub yàlla la li ci dóndóor ju ñun la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ngeen baal ñàkk euh, jërëjëf incha allah ci jërëjëf macha allah macha allah merci ah ah ah sew sax ah mu jël jërëjëf moo ko jiite am la yàlla ci bopp ñu koy ñaanal yàlla gën ko dolli wér yàgg yàlla yàggal ko suñu kanam lool mu ànd wér ak tal ak jaamu yàlla bu ñu nangu ak ñun ñëpp nag ci gannaaw ñëpp ak dongo yeeg njaboot yëpp eh, mi ngi xam ne ne lii nga xamante ne bii moom la ñu jagleel kokk yi mooy bis bi nga xamante ne bis su téere bi nga xamante ne bii ak bindkat yi ñu jagleel kokk yi eh, daara kokk yi eh, bëgg nañ ci lool. bëgg na ci loolu waaye ñi ne ci gannaawam ñuy ñiy jàngale ñiy jàng ñi ne ci kër gi di liggéey ñëpp bëgg na ci ak dëkk bi yëpp mboolem waa tund itam kontaan nañ ci lool muy def loo xamante ne bii euh, def nañ ko fañ ko war ko war a nañ ko fi euh, donte nag yëf yi moom euh, ay ay ay mbir mbir la loo xamante ne bii bu jàggee ni fenn rek lay waaye ren moom fi ñu ko def moom euh, fii fii ci place am nañu ko def muy euh, barab boo xamante ni bii liñ ko sosee mooy jàng ak jàngale ak yar ak defar doomu aadama loolu dong lañ ko sose loolu la ko suñ ma saxit sose 39 ba suñ jamono ji incha allah nu ñaan yàlla mu wéy ba nam ko bëggee woon mu ne ilaa yawmi yunfaqu fihi as assuur bis ba nga xamante ne bii bés dañu wal wal bufta bi kon muy loo xamante ne bii euh, euh, daara ji comme ni nga ko xamee euh, bis bii di bisu téere te téere am na lu ko jiitu woon ndax doomu aadama buy tàmbali jàng ca cosaan li gën a bari amul woon téere fii itam bi ñu fii tàmbali jàng itam amuñu woon téere waaye li ñu doon jàng mooy ay allo allo itam nekkul loo xamante ne bii ñun ñoo ko sos wala Sénégal ko sos waaye bu ñu fàttali ko sunu maam sunu yonent ci yàlla Moussa ay alwaax téereem ci ay alwaax alwaax la nekkoon kon alwaax yooyu ñu xamante ne ci lañ tàmbale woon mu nekk loo xamante ne bii dañ dañ daa bind allo yi buñ xëyee ku ñu war a bindal ñu bindal ko. di ko bindal ba ay raxasam sax mu ne ci mu ne mu ne ci ci ci àlloo ji nga xamante ni booba téere amul ñu ne ca ne ca ca ne xamante ni bi ay benn benn di am téere téere di feeñ ndànk ndànk ndànk boobu ndax booba këyit yombut waaye téere yi itam yombut fu muy jógee yombut ay benn benn benn benn mel moo am ba dogal fu mu toll nii incha allah jamono ji ñu nekk nii téere nekk loo xamante ni bii lu jàpp nal la luy lu lu yomb la lu bari la. Eh, te gis nañ ne jamono joojee eh, njàng mi doxoon na lool ba nga xamante ne téere amut waaye eh, jamono ji itam eh, ni nga xamante ne bii noonu la téere amee ak yeneen jumtuwaay yoo xamante ne bii dañ cee mën a jàng njàng mi itam ci la gën a yaatoo ci la gën a yaatoo ci la gën a développé ndax am na yoo xamante ne bii mënuñ ci woon agsi léegi yàlla man na yàlla dogal la ñu agsi ci ak téere yoo xamante ne mënuñ ci woon a jot xam-xam yoo xam ne mënuñ ko woon a jot am na téere yoo xam ci téere lañ ko mën a jote yàlla defal defal defal nu loolu kon nañ fonk euh, njàng nañ fonk téere surtout njàng njàng ci téere man de kii danaa ko ubbi danaa ko ubbi ndax am na ay ay ay xam lu baax a nga ci safaan baa nga ci waaye man damaa génne boo xam daanaka ab téere boo xam ne loo xam ne ci laa ko binde daanaka yor naa benn kii boo xamante ne bii daanaka ab téere la boo xam ne daanaka ci laa ko ci laa bindee maanaam li nga xamante ne bii ci laay moom laay gis muy ay njariñ yoo xamante ne bii bu ma ko liiree nii rek mën naa ma ngaa ko fàtte dama koy dama koy bind boo ko bindee nag léegi loolu nekk na téere waaw ndax xam-xam euh, dañ ne xam-xam ab rëbb la rëbb am rëbb am rëbb nag boo ko jàppee boo rëbbee ba jàpp sam rëbb maanaam nga jàpp sa sa lëg wala nga jàpp sa leneen te te téyewoo ko il faut nga yeew ko il faut nga yeew ko il faut nga bind ko bind bi nag bind bi nag mooy euh, mooy mooy mooy moo koy yeew bu ko defee léegi nga boo ci mën a dellu boo ci bëggee dellu man caa dellu waaye fekkente ne bii nag bindoo ko da nga ko romb noonu rek jàll ah mën naa am mu gaaw a dem kon sëñ Maxtaar mi ngi sant yàlla mi ngi mi ngi sant yàlla bu baax a baax di sant itam ñi nga xamante ne bii mooy direction des livres ñi nji kilifa yi ñi nga xamante ne bii ñoo tànn fii ah, ak. délégation bi nga xamante ni mat bu mat délégation ak ñi nga xamante ni ñoo fi doon def waxtaan wi ci wàllu euh, arabe ak ci wàllu français ak ñi nga xamante ne bii ñoo doon participer ci gone yi ñëpp mi ngi leen sant di leen gërëm ak ñi doon ñi ko doon organiser ñëpp taxawkaay bi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm baax a baax di ñaan yàlla yàlla delloo na ko ci delloo si ko ci at yu bëree bëri ànd ak wér ak tar ak jaamu yàlla gu ñu nangu asalaamaaleykum wa rahmatullah kon xanaa ñu def ñaan rek àggalem incha allah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mimma unzila ilaykum wa mimma unzila min qablikum ulaika ala hudan min rabbihim la yakun muflihun allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yasawun indahu ala bithni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wa sa'ala kullu shay'in wa anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin mutasawirin min khashyati allah وتكلم صار نزل بنا تعالى ولا رسل والسائر والرحمة والسلام ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ملك سبحانه المسألة الأقوال وضعنا عنك شكل الإقلاع yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir mën di jot lépp lu aju ci daara ji من شر وسواس الناس الذي يوسوس في اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره ربنا اتنا في الدنيا ربنا اتنا في الدنيا Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir mën di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran. yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran. yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au